waaw Mbàkke Bal moom lu mu wax rek moom lu mu wax rek daf may fàttali sax ndax kuréel bi neewoon nañu nag Mbàkke kuréel bi de kuréel bi de neewoon nañu dañu la bëgg a siyaare rek xasidatu euh, ziar moom moom yaaman bi am ndaay yi dañ la ko bëgg a siyaare rek jox la rek kàddu gi sëñ Ablaye bisimilah yaa man bi am ndaay hadi

yaa bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin jërëjëfe cheikhuna ahmadul xadim alhamdulilahi